saytu bi jëm ci appel téléphonique yi ak SMS yi fii ci tindoo di nekk ci dëkk bu sell bii di Touba mel na ni yemb na muy njureef yoo xam ne nag kilifa gi jiite lépp lu jëm ci télécommunication ak post rafetlu na ko ginnaaw bi nga xamee ne sumb na ci àllarba gi càmbar yi nga xam ne moom la ñu càmbar jëm ci roaming national. Euh, tey jii mun nañu constater que roaming national ci benn fànn bi maanaam dox na. Euh, parce que dafa amoon ñaari fànn fànn bu njëkk bi mooy le roaming national ci li nga xam ne dafa concerné jokkoo euh, ci wàllu kallaama ak jokkoo ci wàllu message loolu vérifié nañ ko si ñaari localité yi nga xam ne moom moo nekk fii euh, benn bii di di benn bii di Koutchoub te nekk à quelque kilomètres de la grande ville de Touba roaming national nag ñu ko tuddee bokk na ci li nga xam ne dina jàppandal lépp lu jëm ci connectivité muy jokko waaye itam connexion internet ak fi jamono toll bokk na ci li ci gën a fës nag mooy jàppandal gi nga xam ne am na ci lu jëm ci woote gi ak SMS yi. boo ñëwee ci bërëb boo xam ne euh, puce bi nga yore opérateur boobu nekku fa da ngay basculer automatiquement ci opérateur yi nga xam ne ñu ngi foofu. Euh, am na aussi possibilité boo nekkee ci zone boo xam ne euh, sa opérateur signalam dafa néew nga dem ci paramètre euh, nga désactiver li nga xam ne moom mooy sélection automatique du réseau daf lay permettre nga am list réseau yi affiché wu nga tànn ci kenn koo xam ne jàpp nga ni signalam baax na. lu jëm ci connexion bi jaaree ko ci téléphone yi am na ci yenn taxaw seetlu yoo xam ne. warees nañ koo joyanti. ci wàllu li nga xam ne moom mooy communication internet euh, gis nañ ne euh, ñaari opérateur yëpp euh, su fekkee dañu nekk roaming si orange orange matale na amul benn jafe-jafe gis nañ ne opérateur free bu fekkee ne dafay def roaming ci orange amul jafe-jafe waaye buy def roaming ci expresso dafa am jafe-jafe gis nañ ne expresso amul jafe-jafe buy def roaming ci orange euh, amul jafe-jafe buy def roaming ci ci free loolu lan la signifier que am na lu des. li des nag mooy joyante yi ARTP di sàkku ci opérateur yi laataa ñoo jàll ci bët saalumu senegal ngir jëmal bile naal. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.